mbokk yi nga xam ne yéen a taamu bàyyi xel seen web tv bi di alazar a point com fépp fu ngeen mënti nekk ci biir réew bu Sénégal ak ci bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm fi ñu daan leen ñu daan leen nuyoo jamono ji nekk saa su nekk tey jii nag on va parler de l'économie ici à Touba euh, wàllum koom li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum koppar yi ak lu jëm itam ci euh, banque yi nga xam ne nii euh, ayab diir a ngi nii mën nañ ne lu mat juróomi wala juróom benn jëm fukki at ginnaaw a ngi nii ñoom ñëpp ñu daal di daw dikk daanu si fi nga xam ne moom moo di euh, Touba ñu mën fee compter lu ëpp ñeent fukk jàpp itam euh, fanweer wala fanweer ak lu topp ci ay banques yoo nga xamante ne ñëw nañu samp seen ay banqaas fii ci dëkk bu sell bi ji euh, tubaa loolu le nag nit ñi def nañ ci constat def nañ ci ab seetlu def nañ ci ab taxaw gëstu boo nga xamante ne nii Euh, ñu bëri ci askan wi def nañu ko ci euh, waaye itam loolu lépp xam ngeen ni xalaat yi day wute bu baax a baax a baax selon kenn ku nekk intérêt bi nga am euh, ci banque yooyu lee ñu bëri itam ci askan wi di laajte ndax loolu lee li ko waral moom moo di ne liñ naan Touba dëkku xéewal la Touba dëkku jàmm la Touba dëkku sëriñ bi la ba tax taxi yi nga xamante ne ni moom la commune rurale bu Touba war a jël gàll ko ci ndoddu banque yooyu lee ndax sart yooyu yëpp matale na ko ba tax banque yooyu war fee mën a nekk ak itam ndax njariñ li nga xam ne war nañu koo jëriñ askan bi dëgg dëgg dëgg ñoo ngi leen koy eh, jëriñ loolu lépp nag jéem nañu def ay gëstu ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di autorité yooyu la waaye xam ngeen ni nekkul lu nga xam ne nii lu yomb la waa wala lu antu la waaye itam du ñu dañ di ci ci gëstu du ñu dem itam di ci xuusandi di ci demander ay permission ndax ñu mën ñoo leeralal li nga xamante ni moom moo di seenu nekkin eh, fii ci dëkk bu sell bi di Touba ci yenn anam la nekkee waaye lu ci mënti xew rek ba jamono ji ñuy waxee ak yéen nangu la guñ ñu loolu ñi nga xam ne itam ñoom ñoo di banque itam ba nëgëni nangu la guñ ñu li nga xam ne moom moo di Euh, interview yooyu leen ndaxte dañu ne euh, li nga xam ne moom moo di ne euh, mooy seen ay kilifa yi ca kaw a kaw dañuy laaj ndigal ba pare doog a mën a waxtaan ak ngeen te xam ngeen day laaj procédure yu xaw a gudd xaw a gudd mais lu ci mënti dem nekk rek ñenn ci askan wi yëkkati nañ seen i xalaat ñi ne nañ li nga xam ne moom mooy taxe yooyu la ñu ngi koy fay ba mat ñenn ñi ne taux d'intérêt yi nga xam ne ñu ngi koy teg ci kaw nit ñi nga xam ne ñu leen di lebal xaalis yooyu lee lu xaw a lu xaw a jéggi dayoo ci jamono ji nga xam ne nii am foole bi dafa dafa dafa dafa dafa dafa xaw a jafe lool ba tax na doo am benn pexe lu ci li nga xam ne moo di banque yi ñenn ñi jàpp ne loolu leen lu baax a baax la ba sax itam am ñu nga xamante ni jàpp ne euh, banque nekk na loo xam ne mënut a ñàkk jamono jii ci li nga xam ne moo dund doomu aadama bi lu ci mënti xew dañuy ànd ak suñu caméraman Serigne Cheikh Samb dugg ci biir dëkk bu sell bi Touba jaanloo ak ay euh, ñu fasantikoo ci ay gox laaj leen ba xam lan mooy seen xalaat ci banque yi kon ñu dem te ñëw.

خاتم قبل رياداتي إذ رياد ما إزاد قبلهما من جالبات القرون ما سخاواتي sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay soxna si. Ah, tur bi naka la. Baye Sall ci lan ngay yëngu. man chauffeur laa chauffeuru taximan. est que mës nga jëflante ak bank waaw waaw daanaa jëflante ak bank yi waaw. lan na nga fa amoon compte wala nu mu demee woon. waaw dama fa am compte ba fi ne nii sax mi ngi dox maanaam. waaw fii ci nga ko ma a ubbee fi nga ko amee. waaw ci waaw. est-ce que nemmeeku nga jamono yi euh, banque yi bëri gi ñu bëri euh, Touba nga xam ne plus de ay trente quarante yoo xam ne quarante banque yoo xam mën nga leen nemmeeku ay yi nga xam ne sax xamoo leen ñëw gi nga xam ne ñu ngi koy ñëw Touba yow nga yàpp jàpp ne loolu taxi yi ñu leen war a lañ lañ leen dul taxé moo tax ñu. am intérêt di fi ñëw wala nit ñi ñoom ñëw bëri Touba wala économie Touba moom mooy avancé chaque jour moo tax euh, banque yi ñëw fi lan moo si sa xalaat yow. waaw xam nga Touba moom bari na ay liggéeykat te boo xoolee daanaka Dakar ak Touba am nañ par rapport ci ñi nga xam ne dañuy liggéey di denc ndax dawalkatu sareet yaa ngi fi ñi yor oto di dawalan fi façon nit ku nekk ci di liggéey te ku ci nekk boo yoree as wala loo rek da bëgg di ko dem di ko dénkaane ci banques yi banques yi nag bëri nañ fi trop mais niñ fi baree noonu lañ jubee heure boo leen joxee sa xaalis boo ci soxlaa dangay dem ñu jox la ko normal bari nañ fi nag dëgg yàlla ndax fii daanaka banque yi moom da ngay gis sax ku am xaalis nekk commerçant xëy xëy ubbi ab banque ci côté am ne day jël ay nit pour ñu fay denc xaalis ak yooyu mais nag dëkk bi mooy dëkk xéewal boo xam ne nii moom daanaka heure boo fi ñëwee rek borom dëkk bi moom dalay yaatal ci dëkk bi ñu fi dëkk yaatal la fi nga ànd ak ñoom di liggéey. man ak sama morom ak keneen mën ngaa ubbi compte banque loo am dem dencaane fa wax dëgg yàlla arrangement la ci ñun arrangement la ci yu bari ndax tey mën nga di liggéey fenn xëy xëy yàlla dogal nga am sës tuut xam ne boo ko dénkaane wala dara dañ koy lekk nga dem ci banque yi di ko fa def di ko dénk ndànk nag ndax banque yi moom loo am rek mën nañ la koo téyel. mais est-ce jàpp nga ni euh, autorité yi nga xamante ne nii ñoom ñoo nekkee ci dëkk bi taxi yi ñu war a euh, yi ñoom ñu koy teg. taxes yi ñu war a teg banques yi waaw peut-être rek parce que xam nga affaire yi moom Touba moom dafa nekk dëkk boo xam ne nii taxes yi dëgg dëgg dëgg ñi ko war a fay duñ ko fay waaw banques yi wax dëgg yàlla fi ne nii moom bari nañ fi bari goo xam ne jàpp naa ne sax fi ne mënuñ leen a ndax comme li ma la wax rek da gis commerçant bu mag léeg-léeg mu xaw a yor as tuut ubbi ab banque am ndax man gis naa ko fii waaw ne man damay engagé pour di dencal gaay ak yooyu bari na fi trop vraiment sant yàlla daal en tout cas daal banque yi bari nañ fi te arrangé nañ ni ñi arrangé nañ sama morom parce que loo am mu néew mu bëri di nga mën a dem dénk leen ko bu ko defee ñu la koy téel ngay joxe ndànk-ndànk loo am joxe fa. est-ce que yow euh, ni banque taux d'intérêt yi maanaam boo fa dénkaanee sa xaalis. tuut sëñ say jël wala intérêt bañ lay tegal est ce que yow loolu jàppoo ne xaw naa élevé tuuti ci réew mu xaw a dellu gannaaw tuuti ci comme Sénégal wala réew mu néew doole comme Sénégal rawatina dëkk bi nga xam ne ay taximan na fi nekk ay borom charette a fi nekk est ce que jàpp nga ni taux yooyu ñu leen di ñu leen di ñu leen di teg parfois pour lebal leen xaalis loolu lool defe nga ni euh, xawut a kawe ci ñoom. waaw parce que tamit banques yi léeg-léeg wax ne dafa am ñaari intérêt dafa am banque yoo xam ne boo fa demee jox fa sa xaalis. bu fa yàggee da ngay am intérêt ci banque bi am banque yoo xam ne dañuy am intérêt ci yow mais nag yooyu yëpp moom jàpp naa ne man baaxut ndax nit ki yëkkati xaalisam jox la nga dencal ko nga xëy xëy tegal ko ci intérêt wala mu jox la xaalis nga di ko dagg ci ay intérêt yooyu yëpp moom daanako baaxut te du loo xam ne nii lislaam lu mu mën a nangu la li gënoon daal mooy ki dénk xaalisam bu la ko dénkee bu ñëwee nam la ko joxe woon nga joxewaat ko noonu mais di ci jéem a amee intérêt nga di ci dagg dara moom lu mën a ñàkk la. parce que banque yi moom fii man gars yi banque be man maa leen daan yóbbu ci sama taxi bambam yi ba ci bu ñu bëree bëri Touba bu mosaan saan génn daf may woo ma di ko doxal ay course ci bëri dëkk bi. jàpp la ci ni ci ci dëkk bi banque yi ñëw fii ak itam euh, li nga xam ne nii moom mooy taxi yi nga war a teg ñu ngi leen koy teg bu baax yow loolu nga jàpp. waaw avantage la moom baax na ndax Touba moom toll na foo xamante ne sii dëkk bu ñu dem bañ koy tëkkale capital moom vraiment. war naa sax am lii mu am ci lu ëpp ci ay banque daanaka banque yi mën naa ne la liñ ci soxla dëgg dëgg dëgg dëgg amaguñ ko ndax dëkk bi toll na foo xam ne nii fi ne nii moom maasàllaaw képp ku wax dakaar rek Touba nga ciy teg te nit ku teng fii lu nekk fii nit ñaa ngi xëy di liggéey koo fi gis mi ngi xëy di yëngatu ci dara te ku sañoon boo yëngatu ci dara bu xawee dajee da ngay ut foo ko teg pour ëllëg boo amee soxla mu mën naa la jëriñ te banque yi loolu lañ fiy jëriñ boo ñëwee dénk leen bu yàggee nga dem ba mu dajaloo bu dajaloo dajaloo googu mu dajaloo mën na laa dem ba nga am soxla mu amal la njariñ parce que bu fekkee dangay liggéey saa su ne boo xëyee am 2000 lekk ko it baaxut il faut nga am foo xam ne da nga fay teg même bu dee aw 1000 francs wala téeméer bu yàggee dina daje te loolu rek moo fi njëriñu banque yi dimbale gars yi teel leen seen xaalis am na ci nag banque yoo xam ne moom ñemewuma leen man loo leen dénk bu soobee yàlla moom doo jot mais nag ñëpp yemuñ sant nañ leen baax gërëm leen jërëjëf. maa ngi tudd Mame Diarra Diakhaté. fan nga dëkk. maa ngi tudd Darou Dos. Ah, yow est-ce que xam nga tey reportage bi ñu doon def tey ci lu jëm ci wàllu banque yi est sa connaissance dugg na si bu baax a baax. déedéet. yow am nga compte est-ce que. ko kay. moo tax jéemoo koo ko. waaw sama papa dafa ne woon moo tax. du sama papa di jàll wax sama yaay mu ko fii tiire moo tax waaye man ñoom mosuma feeñee. mais compte bi sa tur la ne. waa sama tur la nekk. su sa yaay di tiree xaalis ci sa ci sa tur la koy jëlee. waaw sama tur la koy jëlee waaw. Gumba Jaxate. Eh, sëñ Gumba yow Touba nga dëkk. Touba laa dëkk. dañoo nemmeeku jamono ji banque yi bëri lool lool lool Touba ndax eh, taxes yi nga xam ne moom lañ leen war a teg ci communauté rurale beeg yu moom lañ leen tegul moo tax kenn ku nekk daw di ubbi sa banque ñëw fi wala nit ñi ñoom ñoo bëri wala immigré yi ñoom ñoo bëri Touba di envoyé xaalis moo tax banque yi ñëw lan moo si sa xalaat. man immigré la États-Unis laa nekk 27 ans. li ñuy transféré muy ñëw ci réew mi par at mi centaine de milliards la loolu moo tax te immigré li ci ëpp Touba lañ dëkk te li ñu am ci léegi alal lépp dañ koy wis gisee ci ay kër ak ay société ak ay business communauté rurale bi teg na leen ni taxe teg nañ leen taxe yi nga xam ne moom la dëkk bi yelloo te ñu ngi koy fay cent pour cent li am kay mooy alal bari ci dëkk bi xaalis la bari ci dëkk bi au ko ñuy dem Mbàkke wala ñuy dem Jurbel wala ñuy dem Dakar di verser ji ñu yeggee leen banque yi alors ñuy verser seen i xaalis di fay seen i droit suñ soxlaa seen xaalis gaaw dem ci te du ñuy teel placé lu bari looloo tax banque yi bari fi. mais comme yow nee nga ne États-Unis nga nekkoon pendant 27 ans est-ce que jàpp nga ni euh, intérêt yi xam ne banques yi ñu ngi koy teg ci ci doomu aadama yi taux d'intérêt tuuti tuuti par rapport ak néew réew bu xaw a néew doole comme Sénégal. taux d'intérêt yi am na jamono jóg na waaye président bu bees bi mu ñëwee ku ne dégg na li mu wax ci taux d'intérêt pour ñu ko peuple bi te it wàññi nañ ko te ragal nañ ne loolu réew la. te it du tee business yi am nañu war a am loolu ci googu wet loolaa ci sama xalaat. mais par rapport doxalinu banque yi fa ca États-Unis ak Sénégal yow ban ban différence nga ci gis. li ma gis ci def États-Unis jàll ci banque yooyu koñ bu ne la ma juróomi banque nga jox alal bari na fa xaalis bari na fa ay minti milliardaire fa ne mais seen lépp daa wuteeg Afrique ndax lépp dañ koo teg ci yoon amul lu ñuy arrangé amul lu ñuy maslaa lépp dañ ko teg ci yoon kenn ku ne la nga war am da nga ko am taux de yi na mu a toll danañ toll ñuy leb ay crédit wala ñuy lépp ay xaalis si banquette dañ di tegalee intérêt dañuy fay à 100 pour cent kenn doo amel kenn dara waaw. mais foofu gis naa ne accès bi accès bi ci crédit bi maanaam pour ñu lebal la dafa xaw a yomb par rapport ak fii fii dañ lay laaj garanti dañ ciy dox a dox a dox ba sonn lan moo tax euh, pays yi nga xam ne ñoom ñoo gën a sous-développé war a mën a jot ci crédit yi nu mu yomb duñ ko def mais pays yi nga xam ne ñoom ñoo ëpp doole ñoom ñooy gën a gaaw a leble wala yu mel noonu. daño wuute parce que foofu li lay am am ko garantie ñu lebal la lu tuuti lay doon parce que xam nañ nit ñi dañuy liggéey dañuy fay Afrique nag li ëpp ci nit ñi cent pour cent quatre-vingt pour cent liggéey ñu te xaalis bu xasee dugg seen loxo pour ñu génne ko delloo ko lu jafe la moo xam ne ñoo ñàkk moyen moo xam ne ñoo mal honnête moo xam ne ñoom pour ñu jot xaalis delloo ko lu jafe la looloo tax banque comme de commerçant la businessman la bala muy dugal xaalisam da koy dugal ci lu leer yaar nga am kayitu kayitu banque keetu kër garanté ko wala nga am kayitu société garanté ko wala nga am business bu dëggër ñu wóor la ne bu ñu la lebel da nga fay loolu moo am fële fii loolu moo fi manqué depuis ñaata at ak ni yaa ngi jëflanteeg banque Sénégal. man depuis 71 laa am sama compte ca États-Unis Citibank compte gi ma sa taxaw lu ci ëpp ci xaalis ci taux bi mu war a doon ARS dañ may woo ñi fa nekkal gouvernement bi wala ñu tëj sama compte laaj ma fan laa jëlee xaalis bi. ba xam damay jëfandikoo lu bon wala duma ma jëfandikoo lu bon bu leeree ñu bàyyi ma sama xaalis bu leeru ñu jël sama xaalis mbaa ñu àllamaan ma loolu nag daa bokkut ak li nem fii li fii doy na waar mënees su ko wax lépp te mënees su ko expliquer moo tax man ma kontaan ci ni Macky Sall doxale ci góor gouvernement bi ni mu doxale ci lépp luy alal ji lew ñu fexe ba mu ne fi waaye lépp luy lewut wala lu jëm ci dorog wala lu jëm ci lu bon ñu fexe ba fàkk ko mu deñ fi. mais gis nañ tamit yenn yenn euh, commerçant yi wala yenn borom alal yi da ngay gis ku yor plus de dix millions rek naa ubbi as banque teg ko ne. kenn ñëw dugal ci xaalisam mu am ay problème loolu est-ce a baax. loolu gouvernement bi surtout Touba day jànkonteeg problème yu mel noonu. loolu gouvernement bi da cee dafa war a liggéey boo xam ne peuple bi la koy defal man de du ma fekk sama xaalis ma am ko néew woo bari ma fekk borom lii mi ne ma ubbi banque sama xaalis parce que business bu ndaw la saaru loolu lépp dañ koy yàq dañ koy lekk mooy indi problème. nit ñi Touba fi dañoo xàmmeewut mutuel ak banque bu mag ak loo yooyu xàmmeewuñ ko daal. nit ku jàngut doxoo xàmmeewoo rek lu ñu lay baax na. nit ku doxut jàngoo xàmmeewoo fu la neex dugal sa loxo lu ñu la def baax na. ok jërëjëf. <laughs> Babacar Diop. sëñ Babacar yow est-ce que yaa ngi jëflanteeg banque. bu baax sax. Mhm. waaw naka ngay jëflanteeg ñoom da nga faa am compte dañ lay lebal. waaw dama fa am compte moom. Euh, bi naka nga def ubbi ko ñoom ñoo la woo wala da ngaa toog toog rek xam ne war ngaa am compte. war faa hmm. fii ci Touba nga ko tijjeewul. waaw. naka nga gisee Touba léegi banque yi ni fi bëree ñoom ñëpp ñëw rek xëpp fi loo ko loo ko jàpp yow da ngaa jàpp ne commune rurale bi moo taxes yi mu war a teg banque yi daf leen koo tegul wala nu mu a ah xam naa danañ leen ko teg moom parce que am réew ku fi nekk moom faw ma ay loi tegu sa kaw moom waaw ndax xam naa ne moom faaw moom ñu teg leen ay ay ay sart moom ay sart yooyu nag moom wii leen teg moom war nañ koo mën a tegoo moom waaw. nañu na ñu ma ñu ma jot a kii euh, waxanteel dañ ne ñoom bawol bawol dañoo am xaalis ak fii immigré yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk bëri nañ moo tax tey banque yi daw ñëw fi est-ce que loolu yow sa xalaat la. ah xalaat la kay sa kay ginnaaw moom fi dool Sénégal ñu ci ëpp liggéeyuun buñ fa mënee am dara mën a mën a cee liggéey ci xaalis ci banque yi day baax tamit. mais est-ce que taux biñ di teg tamit diisul. diis na waaye nag amuñu amuñu pexe. ku xamul foo nu xamul nu ko wolof di waaw waaw ndax moom kenn ku lay lebal cinquante mille moom amu fi ca boo fa demee doon ku wóor dañ la lebal ba un million sax waaw. mais est-ce yooyu du xaw a du xaw a yàgg du dëgër daal par rapport ak yeneen dëkk yi nga xam ne dañoo am doole comme ça boo bëggoon a leb tey dara liñ lay liñ lay teg du du ay garanti ay yu bëree bari yoo xam ne. yooyu mënut a ñàkk nit boo xamul fu mu jógee xamul fu mu bàyyi ko faaw nga laaj ko ay garanti yu leer. waaw ndax du ko mel na ma noonu lebal cent mille nga xëy rek na mes dem loolu mënut a ñàkk waaw. mais cent mille yooyu par exemple ñu teg ci ay quarante mille jëm cinquante est-ce que loolu du diis ci koy leb. waaw amul pexe réew mi mag yi amul pexe amul pexe. man maa ngi tudd Xaadim. Euh, sëñ Xaadim Touba nga dëkk. waaw man Touba laa dëkk. est-ce que yaa ngi jëflante ak banque yi nga xam ne ñoo nekk Touba. waaw maa ngi jëflante ak banque yi nga xam ne ñu ngi nekk Touba waaw. ci ban anam ngay jëflante ak ñoom ak ci lan ngay yëngatu. ah non man si li ma yëngatu mooy damay jaay ay ponu daal deuxièmement mooy waaw li nga xam ne def naa ko ci affaire banque yi ak yooyu mooy dama même am naa fi ay compte deuxièmement tamit maa ngi jël tamit sama xaalis di dem si ñoom ñak ñi may lebal daal ñi may lebal waaw sa lebal boobu début bi yomboon na pour nga dem rek banque yi nga xam ne ñoo fi nekk ñu lebal la waaw ah, non début bi nag moom um foo nag banque boo lee lebal ngay am garanti am naa amoon naa ay garanti am na ñoo xam ne tamit man tamit garanti naa leen ci banque bi ñu lebal leen tamit xaalis est-ce que yow contrat yi nga xam ne ñu ngi ko doon jox ndax yaa ngi ko doon étudier di xool maanaam buñ la lebalee li nga xam ne dañ ko ciy teg ndax du dis ci yow ak yooyu. waaw ah, non doon naa ko xool nag waaye affaire nag yoo xam ne sax mën naa wax seen seen i DPN waaye bëgguma cité benn banque daal di wax ndax am naa foofu ay compte ak yooyu bëgguma nekk di cité nag si benn banque boo xam ne dinaa si di wax leen naan banque bi li muy def ak yooyu seer na ak yooyu daal mënu ko cee wax daal. ñu ci bëri daal seer na. waaw yu si bari nag moom seer na nag moom si bëree bëri seer na am na nag banque boo xam nag moom vraiment moom bi ma ko xoolee moom li muy teg moom bëriwul waaye am na banque yoo xam moom vraiment li teg moom seer na trop trop trop waaw fii si dëkk bi. yow euh, nga Touba. waaw mais yàgg naa Touba bu baax. banque yi par rapport ak année yi nga xam ne ñoom ñoo jàll. ni nga xam ne nañ raare woon nga xam ne presque banque bu mag bi nga xam ne moo presque moo nekk Afrique de l'Ouest rek moom moo fi nekkoon ak léegi ni banque yi bëree banque yu ndaw ndawaan loolu naka naka la nga ko dundee yow. non li ma ko dundee nag mooy euh, xam peut-être moom vraiment moom fenn gënu ko am kii à part Dakar Touba moom commerce bi moom wax dëgg yàlla moom macha allah daal. loolu nag damaa def ne xanaa ñaanu ko baax ki moo tax xanaa moo tax xanaa banque moom it daw ñëw ndax ku tedd ki moo waxoon ne danañ dem ba nga xam ne jëmm jamono joo xam ne nit dana jóge ndar soxla dara ñëw Touba lool nag moom Sëñ Touba fekk na ko ci moom kon nag moom loolu daal moom vraiment loolu daal moom laa xam ne moom ci kii ne moom waaw. est am nga gëstu ci ne taxi yi ngeen war a teg dëgg-dëgg ci dëkk bi ñu ngi leen koy teg par rapport ak Dakar. waaw taxi yi nag si loolu man mënuma cité nag wax ci affaire taxi yi nga xam ñu ngi koy teg ci Touba ndax man nekkuma conseil euh, communautaire bu ma nekkoon conseil communauté rural dinaa xam sax bu def conseil communauté rural bi tamit léeg-léegi ma demee du ma fa dem di ko fekkee kon mënu ma see wax ci loolu. ay plus de 30 banques seen taxe rek waroon nay dem ci affaire tali wala assainissement wala yeneen. waaw mais li ma wax moo dama ne la bu fekkoon ne ma nekkoon naa conseil ministre ci conseil communauté rural bi kon dinaa xam loolu waaye banque bi li fi nekk plus de 30 banques intérêt bi nga xam ne na ko mi ngi koy am ci dëkk bi bi. ak yëpp xam nga daaw rek sëñ Sidi Maxtaar gis nga ko un milliard la fi joxe la joxe si dëkk bi kon nag kon président comité rural bi moom it ak yooyu ah ak ma ba pare may may lancé waa seen message yow it di si benn affaire bi nga xam mooy message bi nga xam maa ngi ko jottali wàlla pour pour waa Touba mooy président comité bi moom it na dem comme intérêt yi nga xam ne banque bi ñu ngi ñëw dina ko teg ñun askan yi nga xam ne ñu ngi nekk fii si Touba moom it na dem moom it dox ak xool yi ah. dem wax ak nguur geeg ñëpp ak néew ju doole yi waaw ak néew ju doole yi moom it ñu xool ba xam ñoom it jim ndax banque bi mooy wax dëgg yàlla banque yi li ñuy am ci li dëkk bi vraiment a fay taxi yoo jigéen dugg. non jigéen gis naa jigéen ñoo xam ne ñu ngi jël ay regroupement fii ak yooyu yëpp ak loolu yooyu tamit moom it xam nga ne moom it loolu mi ngi fi. fi mu toll nii comme ni ni population bi nangoo waxee noonu soo demee vers banque yi dañuy bañ duñ nangoo parce que xam nañ ni tamit ñoom waaw mee xam ne ñoom seen intérêt ñoo si nekk ñoom xam ne loolu seen intérêt moo si nekk waaw loolu daal moom la am xam naa ko ci loo xam ne moom wax dëgg yàlla war naa ko fi mën a mën a ko fi yow nag maa ngi lay sant di la gërëm seen télévision bi daal na dem sa kanam sa kanam sa daraje sëñ Touba vraiment suñu xool seen ndax yéen banque yi bu ngeen fa ak nu leen la wax ñun ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo jëflante banque yi ñoo mën a ñëw rek mën na leeral loolu waaw baax na jërëjëf jàngeen jëf mbokk yi yéen ko gisal seen bopp loolu lañ leen andiloon tey ci li nga xam ne mën nañ ñi ab pàcc la ci gëstu bi nga xam ne ñi ngi koy def ci lu jëm ci wàllum banque yooyu léegi fii ci dëkk bu sell bi di euh, Touba gis ngeen nag impression yi nga xam ne ni nit ñi joxe nañu ko gis ngeen tam yëg-yëg yi nga xam ne nit ñi am nañu ko kenn ku nekk bokkale woo ak sa moroom yëg-yëg yu nga xam ne ni moom nga am ci li nga xam ne moom moo di banque yooyu nga xam ne ay bërëbu dencukaayu euh, koppar la tañ ne xus jamono ji ci dëkk bu sell bi di euh, Touba reportage bi nag du yem am fii li première partie bi rek lay doon deuxième partie bi daañu fexe ba jokkoo ak ay banquier fexe itam ba jokkoo ak ñenn ci autorité yi nga xam ne ni ñu ci dëkk bu sell bi di Touba ji ak itam taxi yi nga xam ne war nañu ko teg ñi nga xamante ni ñoom ñoo di banque yi ba ñu war a gën a mën a jariñ li nga xam ne moom moo di dëkk bi ci nekkin wi nga xam ne ci la ñu nekk ak itam ñoom banque yooyu le liñ naan mag du sëgg ci mag du fecc ci yàlla naa dee mooy itam li nga xam ne moom lañu fiy jëlee ni am koom war nañuy delloo lu toll noonu ci fi nga xam ne moo dëkk bu sell bi Touba te xam nañu ne Touba euh, dafa euh, maanaam boo jëlee li nga xam ne moom moo di wàllum liggéey bi daanaka dañ koo tënk ci lu jëm ci wàllum commerce te itam ku wax commerce wax lu jëm ci wàllum banque bu ñu xool tam ñi nga xam ne ñoom ñoo di immigré yi nga xam ne ay doomu réew Sénégal a ñu nekk ci bitim réew te fépp ci àdduna bi ña nga fa te ñu ci ëpp daanaka ci Touba gi la ñu ak fu mel ne région de Louga fu soriwul dara Touba li ñuy envoyé ci xaalis par mois par an loolu le lu takkoo takkoo takku la ba tax na xëy na jombul na ay euh, nit sax dégg nañ leen ñu ne xëy na loolu moom moo tax banque yi ñëw transfert d' argent yooyu nga xam ne nii dañ mukk chaque jour di gën di yokk moom moo tax banques yi tam di fi ñëw à chaque fois dem sax ba ñi nga xam ne ay société sénégalaise lañu ay ñoo xam ne nii sax euh, xëy na yàlla leen a mën a gan rek ñu am koppar ubbi seen ay banque yu ndaw ubbi ay seen ay transfert d' argent d' argent pour ne pas faire publicité bi euh, ñëpp xam nañu ko loolu gis nañ ni jamono ji lu xaw a ci ci ci fi nga xam ne moo di Sénégal kon yaakaar naa ni lii pàcc bu yaatu la boo xam ne dañu ko ubbi tàmbalee gun ko nii rek mais daañu ko continuer incha allah fi leeg yeneen diir bu fekkee yëpp li nga xam ne ni war na ci am ak ñi nga xam ne war nañoo jokkoo ak ñoom jàpp ni na rek daañu ko wóyandil di leen sant leen gërëm jàpp ne itam reportage bi ñu leen présenté tey jii neex na leen di gërëm bu baax a baax waaye xarala yi nga xam ne ñoom lañu àndal ba ngeen man ñoo teggat Serigne Cheikh Samb ci cadrage bi Serigne Soy bu Mbacke Mar Serigne Lamine Touré ak équipe technique bi yëpp ñu ngi leen di jaajëfal leen jox di daje euh, très